Abonnez-vous, ciao ni mu tëddee bam Balla Gaye 2 digganteem ak Bombardier mu mel yaakaar dafa yàkkeeku waaye xel yu bari itam lañu xalaatoon nax na leen ginnaaw bu ñu bari jàppee woon ne moom Balla Gaye 2 dafa ñëw saax-saaxee ki la di Bombardier daan ko jël bu yomb ba noppi dem ñibbi ñu gis ne moom Bombardier tey moo dal di dominer Balla Gaye 2 ba ci li nga xam ne moom moo tax ñu jox ko ndam li ay avertissement yoo xam ne moo tax ñu dal di disqualifier Balla jël ndam li jox ko ki nga xam ne moom moo di Bombardier yi Bombardier ñëw tey mayul dara ki nga xam ne moom moo di Balla Gaye 2 ci ay jamono sax gisoon nañu ay image yoo xam ni ñenn gi supporteru Balla Gaye yi ñu ngi doon euh, commencé di fippu ndaxte moom Bombardier yi def ko dal di euh, mëne ci li nga xam ne moom moo di ci làmb ji ay quatre appui yu ñu gis yoo xam ne ñenn ñi ñu ngi wax VAR waaye arbitre yi dañoo dem ba delloo si waat leen ci biir géew bi ndax dañoo génnoon saaku ya moom Balla yi nag ginnaaw bu mu nanguwul wax ci li nga xam ne moom moo di micro yi yi waaye gis nañ ne mu mel ni moom gàcce euh, daf ko daal di euh, dab ndax dafa am mbetteel ci làmb ji nga xam ne moom la doon amal tey digganteem ak ki nga xam ne moom moo di euh, Bombardier ndax Bombardier daanoon na ko daanaat ko tey lii wane rek ne moom Bombardier moo man ki nga xam ne moom moo di Balla de mu ànd ak ñi nga xam ne ñoom la àndaloon bi muy ñëw ci làmb ji Aziz Ndiaye ak ñoom Ketchup ñaaxarañ lu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo toppe woon ci ginnaawam moom Balla Gaye 2 jamono ji rongañam mi ngi dal mu dal di solaat ay dàllam ànd ak nitam wuti fa mu jóge woon mbokki xarit yi lii la ñu leen andiloon tey ginnaaw réaction bu Balla Gaye 2 ñu gis na nag moom Balla Gaye 2 jamono ji mu ngi dal di dugg ci otoom noonu pour dem ñibbi Bombardier itam nag noonu mu ngi ànd ak ay ay ñoñam di jubilé li nga xam ne moom moo di victoire bi nam yen wut Balla gay teg ko ci suuf waaye daf ko daan ci ay avertissement ñuy wéy di ànd ci suñu ay programme di leen abonné activer seeni cloche de notification ngir ngeen mën a am suñuy vidéo à temps réel jangeen jëf. Abonnez-vous, ciao le Sénégal